alhamdulilahi rabbil alamin wa salli allahuma wa sallim ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa ashaabihi ajmain mbokki jullit yi ñoo ngi leen di dénk di dénk sunu borom tabaraka wa taala def ay digalam te bàyyi ay tereem mbokki jullit yi doomu aadama ju nekk fii ci kaw suuf lii itteem mooy seet gëstu sonn ngir àgg ci li ñuy tudde texeg àdduna texeg àdduna nag muy saadatu dunia saada mooy am dund bu neex boo xam ne day ànd ak dal goo xam ne amatuloo problème amatoo jafe-jafe saada moomu muy àgg ci su dund neex te amatooy jafe-jafe mooy lan dëgg-dëgg ak fan la nekk ndax dafa nekk rek ci alal ju bari yoo xam ne nit ki da koy dajale bépp moyen boo xam ne soxla na ko ci àdduna mu am ko ndax kooku la ak texe nekk ci àdduna texe googu ndax dafa nekk ci place boo xam ne nit ka da koy wàcce muy ndomb ak tànk moo xam bu magee la wala bu digg doomu wala nu mu toll waaye daal da koy teg ci bërëb boo xam ne mbooloo mu bari dañuy nekk ci suufam mu yilif leen ñi koy liggéeyal di déglu ndigalam ndax foofa la ne ndax texe googi dafa nekk ci wér-gi-yaram ak nit ki am lu ko doy sëkk ci ab dundam am ak njaboot ndax foofu la texe nekk ndax dafa nekk ci mucc ci doomu aadama yi ak seeni lor ak seeni wax ak seeni jëf ak seen këñaan ndax loolu mooy texe texe moom yi day ay nit jéem nañ koo wut jaare ko ci ay yoon yoo xam ne yoon yu dëng la faf mu soppi ko ci seen kaw alkane fa nekkatul ak texe faf mu alag leen buur biñ daan wax firawna sàkku na ak texe ci nguur ci ne na am nguur yàlla jox ko nguur gu doy sëkk waaye nag ngëm nekku fa iman àndu ca àgg na ci dem bay damoo nguuram di wax ne alaysa li mulku wa haadihi al anhaaru tajri min taxti mu ne man araada maay buuru misra te misra boobu buñ ko waxee ci yooyu jamono lu rëy a rëy tudd booba mu ne te boo xoolee sama pale yi ma nekk di dund ci kaw boo xoolee dex yaa ngi daw ci suuf foo xoolu dex la kon mi ngi damoo nguuram waaye mu fàtte ne nguur googee mu nekk yàllaa ko ko may Égypte googee muy damoo muy misra yàllaa ko koy jox mbooloo moomu nekk ci suufam ba mu jàpp ne dara tëwu ko yàllaa ko jox mbooloo mi alal yu bari jim am fàtte na ne yàllaa koy jox muy lekk moo koy jox mu naan dem na ba àgg ci wax ak nit ña bi nga xamee ne yëg yëgal nañ ko ne yàlla am na jeneen ju dul yow yonent yàlla Muusaa wax ko mu ne maa alimtu lakum min ilahin gayri mu ne man de xamalu ma leen yeneen yàlla jurul man kon kooka àgg na fa mbewte di àgg la doon ak mujjam bi mu demee ba àgg foofu mooy texe gam doon wut wëlbatiku na ci kawam soppiku alkande borom bi tabaraka wa taala fa axadahu llahu nakaala al aax nakaala al uula sunu borom tabaraka wa taala teg ci kawam mbugalum àdduna ak mbugalum alaxira kenn ku nekk xam na nam faatoo jaamum yàlla bu ñu wax qaaruun te dafa dajoon ak firawna ci jamono kële doon borom nguur kii moom gëstu ji ak texe ci alal borom bi tabaraka wa taala sottil ko ci alal loo xam ne jéggi na dayo ni ko sunu borom waxee daf ne wa aataynaahu min alkunuusi nee na sottil nan ko ci xeeti alal yoo xam ne lii wurus ak xaalis la lii ay moomeel la lii ak jur la lii ay jaam la maa inna mafatixahu la tanuu bil usbati ulil quwa nee na alal jooju magasin yañ ko def caabi ya koy tëj mbooloo mu am kattan sax suñ caabi ya day diis kon magasin ya bari na lool waxul na alal ja tollu de waaye magasin ya koy tëj caabi ya dong la tanawu bil usbati ulil quwa mbooloo bari te doon ay ndaw yu am ay kattan suñ leen yanoon caabi yooyee day dañuy sonn lool kon jooju alal jéggi na dayo alal jooju nag du caagi ne xam-xamama ko may du caagi ne ak yawute wala muus moo ko ko may du it aw ñaq nekkul woon itam xarañ ci wàllu liggéey waaye sun borom tabaraka wa moo ko ko sottil rek waaye nag mu def safaan ba ñàkk gëm yàlla boole ko ak bew ci kaw suuf boole ko jàpp ne alal ji pexe boppam ko ko jox ba wax ne innama utiituhu ala ilmin indi mu xam-xamu bopp moo ko jox booba la mbewte ma ñëw ndax delloowut yëf ya ko ko moom luy mujj fa xasaf bihi wa bi daarihi l taxe gam doon wut yàq na ko ndaxte yàlla da ko jox xéewal te ko mu weddi xéewalu suñu borom tabaraka wa taala yàlla nee na ma toraxal ko labal ko moo këram boole leen tàbbal leen ci suuf loolu mooy xas xëy na rek toog mbooloo mu wër ko mu toog ci seesa ak mbooloo ba mu yàgg ñu gis tabax bi di dem di wàcc ànd ak moom bi mu daan génn lépp seey suuf maasaloo ci kawam noonu la sunu borom tabaraka wa taala alaja qaaroon abu lahab nekk waajur nekk bàyyi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moom bàyyam yoo bokk wuti woon na ak texe ci daraja suñu borom tabaraka wa taala may ko daraja ba mu bokk ci ñetti nit ñi nga xam ne ñoo yilif giir Quraysh muy giir gi ëppoon doole te gënoon tedd ci Makka Abu Lahab moo doon benn ponk bi kon àggoon na fu daraja di àgg waaye lu mu ko jural weddi yàlla yebal ab yonentam mu wax ko wax ju ñaaw weddi ko woo nit ñi ci weddi ko jeexal ak dundam ci loola suñu borom tabaraka wa taala toroxal ko wàcce ci moom alquran muy dund muy tabbat yada abi lahab mu ne abu lahab alku na taskare na tey fa mu jëm mooy sa yasla naaran zaata lahab fa mu jëm mooy dana tàbbi sawara kon kooku wal iyaasu billah texe gëm doon wut amu ko torox na ndax jaarewu ko fañ koy jaare meneen moroomam doonoon beneen ponk ci Quraysh ku ñuy wax alwalid ibn al moom dafa jàppoon ne bari ay doom foofu la tiraanga nekk mu di ko sàkku nag ci anam bu nekk sunu borom tabaraka wa taala wërsëgale ko fukki doom yoo xam ne ñëpp ay ponkal lañ ay xeexkat lañ ay boroomi doole lañ ay liggéeykat lañ mu daan damoo doomam yooyu ba bu ma saam toog ci jataay la day wax ne juróom toog ci wetu ndeyjoor gi juróom toog juróomi ponkal toog ci wetu càmmoñ bi ngir ñu xam ne moom moo toll noonu fa mu mujj ak mooy weddi ko sunu boroom tabaraka wa taala boole ko njabootam googee toroxal ko moo tax mu ne zarni wa man xalaqtu waxida bàyyi maag kii nga xam ne fàtte na ne ba ma koy bind moom dong moo ne woon cëpp ci suuf tekkiwul dara doonul kenn amul woon doom amul woon jabar wa jaaltu lahu maalan mamduuda ma sottil ko alal wa banina shuhuda ma may ko ay doom yoo xam fu mu teew sax ñu teew ko comme noonu mu ko bëggee woon wa mahadtu lahu tamhida ma yombalal ko mbir yépp te doyloo loolu xanaa bu mu toll fu nekk di wut ndool leen te boolewu ci gëm yàlla borom bi tabaraka wa taala na mu alal ko lu ëpp ci doomu aadama yi jàpp nañ ne mooy yi nekk ci kaw suuf muy alali àdduna akub moomeel akub pal ak daraja jàpp nañ ne loolu mooy texe waaye loola du texe am na ci nit ñi ñoo xam ne jàpp nañ ne buñ siiwul rek ba ñépp xam leen ñoom amaguñ lañ bëgg kon seen dund àdduna du neex pexe muñ mën a def mu nekk danañ ko jéem a def ngir leen nit ñi nañu leen xam am ci ñoo xam ne jàpp nañ ne xeetu pop ak caaxaan tëgg ak fecc ak way ak sport ak yoo xam ne lu bari ci sun jamono tey dañ koy jëfandikoo mu doon ak mooy yàlla defe nañ ne foofu la seen tiraanga nekk seen daraja itam foofu la nekk ba loolu dox na seen diggante ak seen imaan muy seen diggante ak seen gëm seen borom borom bi tabaraka wa xamal nanu ne texe daf koy muur ci képp koo xam ne nangulu ko nguuram gi nangu koo jaamu nangoo toroxlu fi kanamam nangoo sujjóot fi kanamam nangu koo tuubal ci say bàkkaar ki nanguwut loolu borom bi tabaraka wa taala nee na mënta texe fii ci àdduna ak lu mu ko mën a jox nag muy alal muy ak pal muy daraja muy mbooloo lu ca mën a xew borom bi tabaraka wa taala nee na wa man arada an dikri fa inna lahu maishatan danka ki won gannaaw tudd yàlla won gannaaw alquran won gannaaw diine lislaam suñ borom tabaraka wa taala ne fu mu mën a jëm ak dundam day fees dell ak i tànk-tànk maanaam ay jafe-jafe maishatan danka tey nee na yemul ci dund àdduna bi naqari waaye wa naxsuruhu yowma alqiyamati ama nee na ëllëg bu ma koy dekkal bu dekkee du indaale ay bët du gis su boobaa nag mu qaala rabbi lima xashartani ama wa qad kuntu basira su boobaa dana ne yàlla yow sama borom lu tax nga dekkal ma ma indaale ak ngumba te man ci àdduna dama doon gis borom bi tabaraka wa taala ne ko kadalika ataka ayatuna fa nasitaha sama alquran bi ba ma ko wàccee ñi indi ko nit ñi di ca woote di ko jàngale di ko dund di ko jëfe da ko wanoon gannaaw yow da ngaa meloon ne ci alquran loolu moo tax ñu gumbaal la nag tey ne la na nga gumbaawoon ba nangoo woon a xool alxuraan nangu woo ko woon a gëm nangu ko woon a dund kon nag tey da ngay gumba ba di nga bëgg itam doo ko mën a am kooku misaal la rek ci texee di ga ca nar a tegu wala yaasu billah kon mbokk jullit texe gi ñuy wut ci ñaari mbir la nekk al iman gëm yàlla ngëm bu sell pas-pas bu sell boo xam ne njaxas nekku wala amalu saalih ak jëf yu baax yi suñ borom yépp ci yu baax muy jaamu yàlla yi muy lu aju ci pas-pas yi lu aju ci jikko yi lépp loo xam ne luy rafetal la nga nekk ca loola loolu mooy indi ak texe fii ci àdduna te moo koy indi itam ëllëg loolu moo tax Ibrahima alayhi salaam am na ak texe ci iman moom mi wala ci gëm yàlla ndax dafa gëm dund tawxid boole ko ak woote ci tawxid aw nitam àndandoo ne nañ ko sànni ci sawar foofa la ko texe gi dikkale ànd ak ne foofu moo doon al place su alku la sunu borom tabaraka wa taala génneel ko ci loola ak texe qul naa yaa naaru kooni bardan wa salaaman ala ibrahim sunu borom ne yow sawara nekkal ab sedd nekkal jàmm ci ibrahim nee na wa araadu bihi kaydan fa jaalnaahum al axsarin xam ne ñoo ko doon fexeel ñooña ma jox leen ñu perte qul na yaa naaru wa salaaman ala ibrahim noonu ko suñu borom waxe ne na nekk ab sedd bu ànd ak jàmm ci ibrahim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ne su ñëwul woon wa salaaman sawar woowu ñu ko tàbbal ak la tàng tàng ak la metti metti su borom bi yemoon ci kuuni bardan nekkal di ab sedd nee na kon sedd ba dana rey ibrahim ci biir sawara waaye nag ba mu ne bardan wa salaam muy sedd bu ànd ak jàmm bu yem rek ci li nga moom la yaramam aajowoo kon ña ko bëggoon a toroxal bëggoon koo suufeel ngëm yàlla nga ak jëf ju baax ja tax na toroxtaange ja fab soppiku texe ga nekk foofa faf nekk noonu yonent yàlla bu ñuy wax yunus ibnu matta borom bi tabaraka wa taala daf koo nattu natt boo xam ne mosu koo nattu kenn muy aw jën wan ko jën bi ñuy wax xóot mooy jën géej gi xam ne mën naa wan sax aw moom la yàlla dogal mu wan na yonentam boobu ñuy wax yunus ni ko borom bi melale nee na mu nekk ci ñetti lëndam bi muy woo boromam ci ñetti lëndam la nekk muy lëndamu géej gi ak lëndëmu biiru jën bi mu nekk ak lëndëmu guddi gu lëndëm bi mu nekk ndax biir géej rek dafa doy lëndëm lëndëm doy na lëndëm waaye muy guddi di géej doole koog di waxtu lëndëm weer fekkut ba noppi mu nekk ci biiru jën kon kooku mu ci jafe-jafe bu metti boo xam ne mën na nañoo jàpp ne foofa soree na lool ak texe waaye woo ki nga xam ne ñu ko woo ak lu sori sori lu mu lëndëm lëndëm mu daal di doon ku jege wa ida saalaka ibaadi anni fa inni qarib ujibu daawata daa ida daan nee na woon sama jaam yi buñ may laaj nee leen man ku leen jege laa suñ may woo ma di leen wuyu foofa la Yunus waxe ne laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin loolu nga xam ne ku ko wax te nekk ci njàqare sunu borom tabaraka wa taala dana la ca génne loolu la Yunus wax sunu borom tabaraka wa taala xettali ko mu génn ca loola ak texeem daal di biir leer nañ yusuf alayhi salaam am na texe ci ab nat la jaare tëj nañ ko àtte ko tëj ko juróom-ñaari at ci tuuma joo xam ne dara wéru ca muy lu jëm ci jabari buur ba ci biir kaso ba ñoom dëkkal ñi koy laaj xam ne moom firikatu gént la ñi di ko firiloo gént waaye mu teg fële firi gént nekk ci biir kaso ba di woote ci tawxiid yaa saaxibay sijil yéen ñaari sama àndandoo yi ci kaso bi a arbaabul mutafarriquuna xayrun amillaahu alwaaxidul qahaar ci woote boobu la nekkoon ndax ay yàlla yu bari moom la nit ki war a gëm waaye li nit wala li nit ki war a gëm mooy yenn yàlla li nga xam ne mooy alwaaxid mooy kenn ki alqahaar mooy ki not ñëpp di leen wax ne bu leen bokkaale yàlla jenn lay doon waaye bu leen jéem wut ñaari yàlla loolu la nekke woon ca kaso ba sunu borom tabaraka wa taala xettali ko ndax moom mi bokk ci ibadullahi almuxlasin ni ko sunu borom tabaraka wa taala waxee ak texeem daal di tàmbalee foofu te yemu fa Moussa alayhi salaam biñ ko dàqee ba mu dugg ci biir géej ga moom mbooloom ngëm yàllaam ak jëfam ju baax moo ko xettali ndax bi ko àndandoom yi di wax ne noonu day noo ngi ci problème boo xam ne dootuñu mën a génn ndax dugg nañ ci biir géej gi firaw naa ngi suñ gannaaw ak mbooloom di nu dàq te danañ nu te géej gi rek moo nekk ci suñ kanam waaye la mu tontu mooy kàllaa déedéet inna ma'i rabbi sa yahdini man sama borom laa àndal te dana ma wax nu may def ca noonu la ko sunu borom tabaraka wa taala xetlee mu jóge ca texe di gañ ko bëggoon a dugal delsi ci ak texe ba faw te ngëmam yàlla ak yaqiinam moo ko may loolu yonentam yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam muy muhammad ibni abdullah boo seetloo bañ ko ba mu génnee màkk jëm madina ñëw ba ci benn xunti xeer mu dugg ci biir ànd ak abu bakar siddiq radiallahu taala anhu yéefar yaa ngi yor seeni jaasi ci wetam te gisuñu leen abu bakar ngi tiit jël yaramam di ko làqe yaramu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax bëgg suñ ko gisee defe ne Abu Bakar kese la ko suñ doon def musiba yemale ko ci moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko laa taxzan inna allaha maana bul tiit bul jàq ndax nun yàlla lan àndal kon ci ànd ak yàlla su ngëmam wéree du jàq du loolu la yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngal abubakar foofu te kàddu googu nga xam ne dafa feeñal li nekkoon ci xol boobu moom ca la taxi ga dikke ci mbir moo xam ne alkane mënoon na caa juddu saxaaba yi yonente bi sallallahu alayhi wa noonu lañ ko dundee radiallahu taala anhu bi nga xamee ne mbir ma metti na lool ci Uhud nit ñi àndandoo ne leen ah yéen day tey xaw ma fu ngeen jëm yéefari naafiq yi nekkoon ci biir madina ñoo ko doon wax jullit yi alladina qaala lahum annaasu inna annaasa qad jamacu lakum faxshawhum yéen day soo ba ngeen jàq nag te tiit te xam ne addunaan li ci biiram nag àndandoo nañ ñëw bëgg a attaqué dëkk bi dal ci seen kaw yéen de tey du ngeen ci man dara fa zaadahum loola wax jooju ñu ne leen da ngeen a war a dolli da ngeen a war a tiit wax jooju nee na moo yokk seen ngëm yàlla dafa leen defal renforcement ci iman wa qaalu xasbuna allah wa ni'mal wakil ñu ne noonu yàlla doy nanu te ci yàlla lan wéeru borom bi nee na lan lañ leen faye fanqalabu bi nicmatin min allahi wa fadlin lam yamsaskum suu ñu wëlbati ko delloo yërmaande suñ boroom ak i xéewalam ak i ngëneelam benn ñaaw téef dalul ci seen kaw kon loola la leen suñu borom tabaraka wa taala faye al imam ahmad ibnu hanbal ko tëjee ci kaso bi ci jamono yu al ki nga xam ne moo nekkoon ca kaso ba te yore prisonnier ya nee na doon nañ ko dóor dóor yoo xam ne buñ ko dóoroon gëléem mu dee ci imam ju tol noonu ànd lépp mu muñ ci ne pas-pasu ahlu sunna wal bi nga xam ne moom la yor kenn mënta tax mu bàyyi ko borom bi tabaraka wa taala xetti xettali ko mu mujj nekk imaamu ahlu sunna wal jamaa fépp fu borom xam-xam nekk ci àdduna te sunna itteel la ngay jóge fa nga nekkoon di ñëw seet si Ahmad ibn Hanbal ngir jariñu ci moom ka doonoon góor te doon ko dóorlu bi mu demee ba nekk ci sukuraat dafa lalli tapp yu rafet yañ ko lalaloon ca néeg ba ba jot suuf sax mu jël suuf si di ko xëlam ci kanam xar kanam bi di jooy jooy yu metti di wax ak boroomam ne ko yow mi nga xam ne sa nguur du dañ ay waaye yërëmal ki nga xam ne nguuram dañ na waaye noonu la doon waxi boroomam daa di dem ndeysaan daa di jóg toog ne su xamoon ne day ci ndaw laay faatu ndax li ko war day lor war ñu bari am na ñoo xam ne lañ nekk ci alal ak doole man-man ak yu mel noonu dafa ne ni suñu borom da leen di bàyyi ñu dund ba doyal nag ci séerum mujj nag ñu ne tuub naa waaye mbir ma bett ko nag feebar dikkal ko mu feebar nara faat ci jeunesse am amagul daanaka 40 ans yu mat mu ne su ma xamoon ne ak ndaw lay faatoo day bàkkaar yi ma nekkoon kon du ma ci nekk kon kooku boobaa di mujjam ànd ak lim yoroon ci xéewalu àdduna ak ay kàttanam xéewal yooyu soppiku alkande soppiku safaanu texe kële ñu doon bugal ak di ko lor te imaan nekkoon ci xol ba jafe-jafe yam doon dund wëlbatiku soppiku nekk tiraangay àdduna ak joj àllaaxira insha allah ahmad ibn eh, ahmad ibnu taymiya eh, bokk ci kenn ci àndaloo imaam ahmad ibnu hanbal moom yi ndax ci am ngërëm la nekkoon dañ ko doon jàpp di ko jéng di ko lor di ko tëj benn bés dañ ko dugal ci ab néeg bu xat tëj ko foofa mu jàng waxe suñu borom tabaraka wa taala fa duriba baynahum bi suurin lahu baabun baatinuhu fihi rahmatu wa zaahiruhu min qibalihi al azaab lam cay wane mooy dafa mel ni ñoom fii ñu ko tëj jàpp ne foofu dañ koy mbugal moom gëm na ne li féete biir tam nekk fa foofa mooy yermaande ja waaye li ca féete nit ñi nag foofa la mbugal ma nekk ak metit wax moo tax da doon wax ne sama noon yi day ma lan lañ ma manal ndax man sama ngëm mi ngi ci sama xol fu ma jëm dama koy yóbbaale suñ ma reyee loolu shahada fi sabilillahi la maanaam damay bokk ci martyr yi nga xam ne ci yoonu yàlla lañ ma rey suñ ma dàqee ma génn sama réew itam nee na loolu tourisme la boo xam ne bu nit ki di jariñoo la nee na suñ ma tëjee itam kooku wéet ak sama borom la boo xam ne mën naa faa jàng alquran mën naa faa jàng xam-xam mën naa fa bind loolu wone na ko ndax li ëpp ci xam-xam boo xam bàyyi na ko tey ci kaw suuf nit ñi di ko jàng ci biir kaso la ko bindee bokk na ci téere bu rëy bi nga xam ne ñaar fukki tom la ak juróom-ñaar ñu di ko wax majmuul fatawa kooku ci biir kaso la ko bindee kon tëj ga doonul lor Ibrahim ibn Adham muy ku baax dafa ñàkkoon ba ci mbedd lay fanaan ànd ak ne boroom xam-xam la bu masaan xëy bu amee wenn morso mburu ci lay ndékki ci lay añ ci lay reer ànd ak loolu ngëm yàlla gi ci xol bi ak tudd yàlla ga ak jàng alxuraan ga ak xam-xam bi muy dund day wax ne man di dund gii may dund ak li may yëg su ko góor yi xamoon dana leen jaral ñëw xeex man yor ay jaasi di xeex ak man ba nangu ko ci man te jox ma geneen dund bu bokkul ak gii kon ngëm yàlla gi ak la nekk ci xol ba boobu la texe gi nekk bari aana ku xëy yor ay sagaram gàddu ab ëlleeram wala marto kër kër yi ñaq sonn fàggoo tuuti di ko dund ci ab dundam jant soo mu tëdd nelaw ba suba mu xëy dem liggéeyuwaat jaamu boroomam ànd ak imaanam ànd ak tuuti alalam di yëg ci ak texe ak féexu xol loo xam ne am na ku koy romb di dawal xeeti oto yoo xam ne maar day taal yi di dugg ci ay kër yoo xam ne maar day taal te kooku bu guddee du nelaw bu guddee du nelaw mi ngi xalaat ci ay problème ak ay yenn yu diis yu yanoo ay yëf yoo xam ne kenn xamul fu mu koy yenni ko ci àdduna loola ca fér fér joojee ca lay nekk ba keroog muy wuy ji boroomam kii nekk ci ab noflaay te fekk yorul ay moyen yorul dara moo tax ku borom bi tabaraka wa taala jox alal te yàlla àndu ca wala mu jox la tal te ngëm yàlla àndu ca wala mu jox la daraja ak mbooloo te ngëm yàlla àndu ca sooy boo nga tiit xam ne fa inna lahu maishatan dankan gi sunu borom tabaraka wa taala wax ne ab dundam day fees ak ay tànk tànk sooy boo xam ne loolu moo dem cëram fii ci àdduna ak lu moyee bari bari kon mbokki jullit yi gëm yàlla foofu la mbir ma nekk yàlla na nu ko sunu borom tabaraka wa taala wërsëgale xalifa bu mag te siiw te amoon doole te baax lool it nag ñi koy wax Harouna Rachid Harouna Rachid xalifa la woon boo xam ne lim daan joxe fi sabilillahi ci alal ak li nga xam ne daana ko def ci lu baax da daan def bu muy atee day dem aji bu meneen at ñëwee mu jihaad fi sabilillahi noonu la ko doon séddalee ak dundam Harouna Rachid ak nguuram ci lislaam yaatu woon na ba da daan toog aw niir aw niir romb ko ci asamaan si di dem mu ne ko sooy boog a dem foo ko mën a tawee rek foo ko mën a tawee impôt bi dana ñëw fii loolu la ko daan waxee nga xam ne taw ba fu mu wàcc bu nit ñi bayee ba seen impôt bi danañ ko indi jox si ko xilaafa yi kon wóoram noonu la yaatoo woon dafa dem ba jëmmi jamono mu tabax nag benn palais tabax bu yéeme def ci alal nag ju bare bare bare bare def ko it mu sës rëkk ci dex gi nekk ci Baxdaad bi mu noppee lu doon xeeti décoration yu rafet mu def ko ci ay bunt ay fenêtre yoo xam ne yépp dafa doore bi mu noppee nag ba ko inauguré mu woo mbooloo bi ñuy ñëw ngir seet ci sabax bi ak gis ko xool jardin yeeg mboolem lu fa nekk ci lu rafet nit ñi dugg mbooloo par mbooloo ku dugg rek ndokkeel ko génn dem ba am mbooloo mu dugg mu xool seen ci biir seen biir abul hutaahiya abul hutaahiya dafa doonoon koo xam ne ab poète la nekk it ku dëddu àdduna daanaka lu bari ci lu mu bind ci wàllu poésie ci wàllu dëddu àdduna la ko def bi mu gisee mu bokk ci seen biir nit ñi di ndokkeel di wax kenn ku ne nag lii day xéewal la nangam mu gis ko mu ne cell rek mu ne ko yow day bëgg na maa dégg sa kàddu Harun Rashid wax ko Abul Hutaayi ne ko yow sa kàddu ñor na ma lool ma dégg ko mu ne ko ish ma bada laka saaliman fi dilli shaahiqati alqusuur nee ko dundal lu la neex ànd ak wér-gi-yaram ci sa tabax yu kawe yajri alayka bi ma aradta maa alxuduwi maa albukuur nee na mu di la sottil di la andi lépp loo bëgg na nga ci jot suba ak ngoon fa ida nufuusu tagargarat bi safiri xashrajati sudur fa hunaaka taalamu muuqinan ma kunta illa fi gurur mu ne ko jamono yoo xamee ne rek dem nga ba sukuraat ñëw jamono yoo demee ba sukuraat ñëw dem ba àgg sa noo gi koy xëcc ba sonn ngelaw li door a mën a génn nee na su boobaa nag bis boobee ngay door a am yaqiin ne ndekete yu rafet yii la waroon yépp ay nax la woon waaye du dara bi mu waxee lii ba daaneel mu ne ko waxaatal li nga waxoon mu waxaatal ko ko ñetti yoon mu dégg Haaruna Rachid dal di jooy jooy yu metti ba daanu sax ci suuf ñi di ko yëkkati bi mu jógee mu ne mboolem décoration yi ñu fi defoon nañ ko dindi ñu dindi lépp fenêtre yi doore woon ak yu mel noonu yëpp mu ne leen nañ ko tëj ñu daal di tëj bunt yi mu wàcc génn dellu ca kër gu yàgg gam dëkkoon foofa la nekk booba pale moom ñu daal di koy tëj matul ab diir bu yàgg weer wala weer ak dara yàlla dogal mu faf génn àdduna moom ci boppam la ko kooka doon wax daal ñëw mbokki jullit yi ku bëgg a texe fii ci àdduna ak àllaaxira sa texe mi ngi ci jàkka sa texe mi ngi ci alquran sa texe mi ngi ci tudd yàlla sa texe mi ngi ci jàng xam-xam ak dund ko ñu ngi ci sunnas yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ci njub mi ngi ci mbaax mi ngi ci rafetal jëme ci doomu aadama yi ak taxoo yoonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba keroog ngay génn àdduna yàlla na suñu borom tabaraka wa taala defal loolu allahuma aqsim lana min xashiyatika ma taxulu bihi baynana wa bayna maasik wa min taatika ma tuballiguna bihi jannatak wa min alyaqini ma tuhawinu bihi alayna masaib addunya allahuma matticna bi asmaina wa absarina wa quwatina ma axyitana wajcalhu alwarisa minna wajcal